doy nga ñu sëkk yaay suñu buur allahu allah du ñu jaamu ku la mooy allahu allah waaw maa ngi leen di fay soxna si waaw asalaamaaleykum ah, wa rahmatullah man la soxna Xadijatu Jaw euh, présidente association soxnay daara yi muy association boo xam ne soxnay sëriñ daara yi la ak jigéen ñi nga xam ne dañoo yor daara di jàngale alxuraan nekk parcelle waaw maay seen président ñu hmm. moo waral sa teewaay fii waa dañoo ñëwoon tey ngir sargal suñu doom suñu rakk Mouhamadul Amine Diop ndax comme ñun alxuraan moo ñu ñor bañ ci nekk ci biir daara yi di ci yëngu di jàppale suñu borom kar suñuy sëriñ daara fu ñu dégg loo xam ne nii lu jëm ci alxuraan la rek war nañ faa teew wane fa suñu yéene donc xëy na yéene bi tam lu ndaw la waaye xëy na ëllëg mën nañoo am lu ëpp lii nii nii comme dañuy doog a door rek waaye daal li ñu yëkkati mooy lépp loo xam ne lu alxuraan di yëngu la rek ñun foofu la ñu fas yéenee feeñ. bëgguñoo feeñ ci ay euh, soirée bëgguñoo feeñ ci ay sabar wala ñun daal lépp loo xam ne lu yëngu ci alxuraan la rek ci lañ fas yéenee feeñ wane ci soxna yi nga xam ne ñooy soxna daara yi wane soxna yi nga xam ne ñooy soxna yi xam ne jàpp nañ ne ñoo gën ci euh, Sénégal ndax ñoom ñooy yëngu ci alxuraan ñooy yëngu ci euh, biir daara yi nekk ak ndongo daara yi nga xam ne ñoom la suñu borom gën a fonk ci kaw suuf Mouhamadou Amine Diop li ma koy wax mooy mu gën a góor góorlu lu mu jàppoon tey ba am lii rek nag gën a jàppaat te xam ne lii nii lu ndaw la fi ñu koy séntu moo ëpp fii ñuy koy jàppale nag ñun ñëpp nekk ci ginnaawam di ko gunge ba ñu seen gis ko feneen foo xam ne moo gën a kawe fii incha allah di kontaan lool nag ci eh, way gi eh, maanaam yëkkate gi nga xam ne feeñal na jëfi Serigne Touba ca réewu naar ya loolu moom bokk na ci lu ñu gën a marqué bokk na itam ci li ñu gën a kontaan lool ndax dëgg la Serigne Touba moom du kuy réer sax wala kuy nëbb bañ koy wane waaye nag xëy na am na ñoo xam ne réere nañ ko te gi mu ko feeñal foofu nag lu ñu kontaan loola ba tax tey ñu ñëw wane suñu yéene sargal ko eh, ci ci loolu jërëjëf